شيطان الإنس والجن بسم الله ما شاء الله لا يسوق خيرا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يترك السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا الله واحد الأحد المنفرد بالجلال والعظم والكبرياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين wa kulli man istanna bi sunnatihi wa daawa bi daawatihi ila yawmi ddin amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen baalu àq te di leen baal di ñaanal mboolem koo xam ne yaa ngi seetaan Géewul TV nga xam ne si télé bi seen télé la ñu ànd ci liggéey bi ak sëriñ Alla Wade di ko ñaanal bu baax yàlla dëgëral ko ndax bu ngeen mënee seetaan émission yi ëpp ci Géewul TV yàlla ak moom la te moom kat du ci génn waaye dana ci def liggéey bu am solo di gërëm ñi koy seetaan moo xam góor ñi ak jigéen ñi di nuyu kilifa diine yëpp mboolem xalifa généraux yi mboolem magi diine yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di gërëm bu baax kilifay aada yi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi di ko dalee ci njiitum réew mi ak ñi koy jàppale ak nit fu nit mën a nekk rek tey jàppale réew mi ñu ngi lay nuyu te di ziyaara ndax kilifa diine mënul ñàkk ci réew kilifa aada mënul ñàkk ci réew ñaare nag yàlla boole ñaare ndomba tànk yépp jox la waaye du teel la war a doxal rek nga doxal ko ca du nuyu bu baax sang yi nga xam ne dañuy topp émission bi di ko seetaan saa su ne di leen jaajëfal bu baax dañuy def émission bu ne rek ñu am lenn ci ay nit yu ñu tudd bu ko defee beneen émission bu dikkaatee ñu tuddaat ñaneen insha allah rabbi ndax émission eh. bi ñëpp a koy seetaan fu ne lañ lay woo ci biir dëkk bi ci biir réew mi ak bitim réew di rafetli émission bi nga xam ne moo tudd an nasiha nga xam ne du man kese tabarakallahu bu yàggul am na mbokk ñu fi dalaloon insha allah ñu ngi séntu yeneen mbokk yoo xam ne war nañ leen a dalal ci émission an nasiha ki ngeen àndal ci waxtaan wi mooy seen mbokk Mouhamad lamise alquran di gërëm bu baax sëriñ Ousmane ba sama wayjur nga xam ne saa su ne day seetaan émission bi di ci def ay commentaire di woote naan lii mooy doxal mbir sangam ngeen moytu nangam ngeen moytu nangam nga xam ne yooyu mu lay digal ak di la ko tere yépp luy jariñ diine ji la luy jariñ émission bi la di gërëm bu baax sëriñ bu yeñas tabarakallah bi nekk ci nurul islam ñu ngi koy gërëm bu baax ak sëriñ Modou Fall sama mak sama xarit tabarakallahu ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen gudd fan gu ànd ak wér di ñaanal mbokk yi nga xam ni ñoo tawat te nekk ci lalu hôpital yi wala nekk ci kër yi émission an nasiha mi ngi leen di ñaanal wér yàlla na suñu borom fëgg seen bopp di ñaanal bu baax itamit ñi nga xam ni la yàlla moom ci biir ay bis gi di leen jaal seeni bokk di ñaan suñu borom mu teera leen yërmande ñi ñëwaat ci beneen émission an nasiha ñu ñu war a waxtaane tey tomb ba am solo tomb boo xam ne yëngal na jamono yëngal na réew mi yëngal diine ji yëngal tariixa yi yëngal daayira yi yëngal parti politique yi yëngal métier yi mboolem secteur boo mën a dem rek danga fa fekk feebar boobu nga xam ni sun borom moo ko tuddoon ci alquran ba ci biir néegi fenn bàyyiwul bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn bàyyiwul lenn ñu jëloon tomb boobu tey fas yéene ko waxtaane muy ban taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta mbokk yi su ma waxee ay alquran boobu day jàngkat yépp danañ déglu wax ni baat boobu ko dëgg la waaye ñi jàngul lan lañ ci mën a jariñoo tey tomb boobu rek lay waxtaane waxuñu ko nag pour di gaaral kenn ndax suñu cër ëpp na lool diine amul gaaral waxuñu ko pour di ayibal kenn suñu cër ëpp na loolu xamuñu sax ñu koy def waaye nag jamono moo toll foo xam ne am na point yoo xam ne boo ko laalee ñëpp danañ xam ne point bi point bu point bu dëgg la ku ci nekkoon nga bàyyi ko ku ci nekkul woon ngal la ka bañ wax ni taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta suñ borom moo wax ni am na ci sama jaam yi kureel boo xam ni daayira boo xam ni foo leen fekk ña ngay raayalante gannaaw waaye lañuy wax si la nekk ci seen xol yi ak la nekk ci seen kanam yi ak la ñuy jëf dara bokku ca ak la ñu yéene ci seen xol yi jamono bi ju toll wax ma ban secteur ngay dem fekk li ma wax amu fa mooy nit ñu booloo ni ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi ñoo yëkkateendoo ñooy tege ñooy tegandoo te pourtant ku ci ne li muy yéene sa morom mooy nga échec waaw man mii la def émission An Nasiha man mënuma caméra mënuma génn son mënuma defar ay micro dara man lima man rek mooy ñëw toog def émission bi ñu jàlle la waa ki koy jàllale muy sëriñ Alla Wade waaw su fekkoon dafa yéene ca xolam ni émission bi kat amaana sax amul solo wala am na solo sax waaye dinaa ci def ay sabotage moom du ko wax ci làmminam de mais du koy jëf jëfi jëfi jëfi baatin coo xam ni kenn du ko gis nañ moytu loolu xam nga ci jamono bi ñu toll dafa am ay nit ñoo xam ni ay bukki yu sàngoo deru bëy la ñu nekk ci biir bëy yi balaa jàmma mat day faagaagal bëy yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mën na ko faagaagal ci kàddu ko ñaaw man du ko faagaagal ci jëf ndax fii ñépp a koo fi jëf ñu diw moo ko jëf mais dana laqatu dem ci sëriñ baa mu dem ci ab njabarkat baa mu dem ci ku ñeme yàlla koo ko yàq mbiri kooka ba mbir mu dootul dox fekk seytaane moo ci laxasu pour dooleel leen mbir moom bañ a dox mooy taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta am na fépp nag mais damay jël ci secteur yi nga xam ni moom la nit ñi gën a miin ci misaal dañoo nekk ci marché marché bi ñëpp ay jaay mais ci biir njaay mi am nañu yàlla may ñu gën a doxle am nañu wul am ñuy doxle tuuti mais ki doxlewul ba jàppee ni ki mu dendal moo ko xañ wërsëgam su boobaa tahsinuhum jamii'an wa quluubuhum shattaa day daal di dugg mooy nooneel day am ci sa biir xol bu ko defee nga jàpp ne yow ki nga dendal di jaay moo la xañ sa wërsëg te pourtant yoru sa wërsëg yàlla yor sa wërsëg ndax bala yàlla di sàkk fekke wu ko bu la yàlla di wërsëg du ko fekke bis booy bés bu la yàlla di jël du ko fekke loolay indi noonu gi am ci biir xol yi day am ci ay wujju nga amoon sa borom kër bu baax mu lay jox bés bu ne jundi nga xëy am mujj rek mu lay jox bés bu ne juróomi téeméer nga ne waaw daa ay gaaf bi ma takkagul li li la amoon ba ma takkee ba tey amagul amatul dara ah kay mi nga am ña benn nga woon léegi ñaar ngeen loolu wàññi wërsëg bi wàññi ko wul noonu la war a demee suñ borom moo séddalee noonu bu ko defee nga daal di jóg ni sama wujj wi daf maa noonu sama wujj wi daf maa bañ sama wujj wi daf ma xatal sama wujj wi daf may xeex te bu ñëpp toogee nga ne waaw sama rakk la ju baax ñaanal ñu yàlla ñu juboo ratatatatat te boo duggee ci biir néeg ni kii ni ma ko bañee loolu mooy tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta nga dem ci tailleur xoolal tailleur niñ bare ci àdduna bi ku ne sa wërsëg ngay ngay am waaye boo dendee tailleur gis naa tailleur yi sax tabaarakallaahu ñu ngi def ay association des tailleurs ñu ngi dimbalante ñu ngi ci xew yi ñu ngi ci ngénte yi ñu ngi dem ci gàmm yi ñu ngi dem ci leneen ak leneen mais est-ce que au fond yooyu ñuy taxawal noonu la feesee noonu noonu la nekkee ci seen xol bu yàlla génne woon ci xol yi def ko ci penc mi ñu bari danañ weer moo tax suñu borom waxoon afalaa ya'lamu idaa bu'sira maa fi l-qubuur waaye dama xussila maa fi sudur sun borom neena bu ëlëgë yamal xiyam dina dekk ni ci li ñëpp ñu jug taxaw waye duma ci yam de ku ci ne li nga dencoon ci sa dënn te yiñu ko sa morom dina ko génne ñëpp tek ci seen bët bu ko yalla commencé won fi musiba day am xass ba mu set ku ne li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom loolu moo andi xeexante bi ci biir def ko xeexu baatin te xeexu baatin nag balaa jeex rey mom du yam sax ci kay xexal mais balha bàyyi ray ñëpp tahsibuhum jamian wa qulubuhum shatta ñi ngi and rek di jayante di yëkkante te ay garaat di tapalante ay maqama ta fekk lu ci seen xol yi boko ko dindee ko ci pénc mi na bi tukki joxuma exemple rek ci tey rek kese ba ci chauffeur dañuy def regroupement des chauffeurs wut ay coxeur yu baax am naa ci ay mbokk yu baax tabaarakallahu sëriñ Jool Jóob ñu koy ziar bu baax ak sëñ maska mais coxeur yi ay jullit lañu dañuy liggéey di am di ko yóbbu ci seenu njaboot liggéey bu dagan la tabaarakallahu mais gis nga ci biir société yi sax même chauffeur bi apprenti bi client yi da gis nii ñi ngi jàppalante nii ci kaw rek mais ci biir seen xol yi da nga yëg ni wuute am na ci ku yor oto bu baax kay yaa xayti bëgg nga balaa déwén nga yor baneen waaye bu amee ñaari oto ñu ni sama wërsëg la jël nit nu ngi jël wërsëgu jàmbur mbokk yàlla mooy maye mbokk yàlla mooy joxe mbokk yàlla mooy sutural ku ko sob ku sabab lu def la nga war a def rek la nga mi la nga méritool suñu dana la ko jox nga gis ko sóor boo xam ne bëggul lu dul ab kaf yooyu jaar fa moo dem ko sóor yi mu jàpp ne looloo koy may alal te pourtant loolu mayewul may alal xëy liggéey lu la yàlla wërsëgal na la doy gis nga wërsëg yu gën a bari ci àdduna mooy doylu bari da lu ñuy dugg ñàkk doylu moo tax ñu ciy dugg ba démé ci menisé bi dañuy liggéey alal rafet waye ñom japp nañ ni ki ñu dendal moo tax mënuñoo liggéey te wërsëg yemul nak xam nga ci bir liggéey nit ak nit sax relation da ci am bo xamni amana sax mi ngi liggé te kene fayu ko parce que luy sekata mais bo jappé ni mo yor sa wërsëg rek nga dal di jog dem ci sëriñ mo dal di lo fi wut au lieu nga wax ko sa bop nga sosol nga sosol nit Allah wa daf may wa Allah wa daf may daf may daf may nangam motax munutuma am dara kemaram bi mu yor de nga mam ni mu leere wax wax wax wax sosol ko sosol ko yàgg sëriñ ba ngeen ànd di liggéey àllawaat pour mu yàqu te pourtant am na ñoo xam ne kenn mu leen a yàq ku leen bëgg a yàqu rek ay yàqu loolu la ñuy wax taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta ba ci commerçant yi da ngay gis ñu def ay chambre de commerce ni commerçant yi nañ fay tase nañ fay waxtane ñu yëkëte ndo di dal di dóorandoo pour mën a jàkkaarloog dëngamam état wala ñu jàkkaarloog maire bi mais amna ci bir réunion yi lu ñu waxtaan am na kuy daw roccee ko rek da wax ko kanen te pourtant ci bir nek bi lañ ko waxtane motax liñu wara wax ci bir nek nañ ko wax ci bir nek te bu mu senn mais bo jappé ni ki mi ngi jaay 100000 man ma nga jaay 6000 francs wala ma nga jaay 1000 francs tax si ba mu jamiaan wa qul ba mu shatta dal di duggu tey tomb boobu rek la waxtaan mooy noonoo gi am ci biir liggéey bi noonoo bi am ci biir société yi noonoo bi am ci ndey ku ñaar ñu bokk ndey ak baay da ngay bokk ak nit ndey ak baay say mbir dox moom mbiram doxul yàlla moo séddalee noonu mais bul jàpp ni dafa yor sa wërsëg kenn yorul wërsëgu kenn wala nga bokk ak nit baay sax nga jàpp ne moo yor sa wërsëg te nit ki dank agul ci gëm yalla lim war am dara ko am mi ngi sonul bopam banen nono dal di dugg muy taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta xolal li xew ci rew mi ci mbirum pétrole bi ni ciow li bare te ñi ci wax ñi ci ëpp xamuñu ci dara man ak ñoom ayam ci dossier bi rek li ci ëpp ci presse bi dañuy dégg rek commencé commentaire te loolu baaxul nit day wax lu mu xam xoolal ci biir pétrole bi coow li ni mu baree te am na ñoo xam ne sax du Aliou Sall leen yitteel mais directement président baa leen yitteel parce que tax si moom jamian wa quluubuhum shattaa pétrole bi al diw diw sàcc na nangami milliard diw am na ci nangami milliard te dara wóoru la ci lu dul ay waxi kese wala lu ñu bind te ki ko bind yow xamoo ko musuloo koo gis te ku la jàppoon yóbbu la ci kanam tribunal nga weddi li nga waxoon lépp ba ci biir gouvernement dañ am tax mu jameen wa am na ñoo xam ne luñ bokkul jàpp nañ loolu daa war a ñoo xam ne buñ nekkul kilifa nga jàpp nañ ne moom yàlla na yàqu la ñuy wax da ci gouvernement yàlla mooy fan njiit mooy fal ku ko soob mais ci biir njabootam gi sax am na ci koo xam ne du bëgg lu dul mu échec te pourtant mi ngi ci biir njaboot gi bokk ci dund gi bokk ci ndoos gi ñu koy fay comme lépp mais yitteem mooy affaire bi échec taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta kañ la ñuy mujj naka ngay jure nit yar ko jàppale ko defal ko loo xam ne ku dul yàlla defalu ko ko yitteem mooy mooy naa fexe rek ba échec am moo tax nga xam ne nit ñi ànduñu kenn nit ñi ku yeboo jox sa bopp yàlla am na ci ñoo xam ni lii ngi doon xëccoo yàlla mooy fal ku neex fal na ki ko soob mais nañ ko ñaanal ba mandaam jeex bu mandaam jeexee ñeneen ñëw laaj ku ci yàlla jox ñu ànd ak yow mais am na ci ñoo xam ne seen yitte sax coow sax xeeb nañ ko histoire lu mu am rek xeeb nañ ko ndax lan taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta te ku leen dékkoon micro laaj leen lu ngeen xam ci diw danañ tagg ndayam tagg baayam taggi maamam taggi ndijaayam tagg ay impaañam dem ba tappal ko sax ni mooy yàlla waaye gis nga bu ñu wéetee fu mu fanaane fu dul alaaxira rek seen xol seetul te du jeex dem ba yéene nit fu mu fanaan fu dul alaaxira sa xol seddul boobu xol rafetul taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta day am ba ci sun meer yi am ba ci nawetaan yi nawetaan jërul jërul rey nit nawetaan football foo mais jërul xaw nit pour mu damm jërul xaw nit pour mu dee jarul xoolil pour mu gumba jarul xoolil pour biir may metti déedéet yow kay yàlla mooy maye ñaanal yàlla gañe rek gañe gu sedd waaw ki ngay xaw pour mu dee boo ko xoolee te fekk moo la bopp rek boo ci dee boo demee ci yàlla loo koy wax te pourtant ñii football ñëpp a xamante équipe yëpp a xamante ku ne xam nga sa turu papa ku ne xam nga sa turu yaay te nee nañ dañuy fo mais foo jurul saaga. fore, dama wax jurul saga jurul xex bu fekke fo nga ci jurul jurul saga jurul xex jurul pour ray nit xolal mère yi buñ ci yegge bokk yi ñun ñëpp ñi ngi ànd ki war a jiite ngi jiite ñi mu àndal ñi ngi àndal di liggéey ña ca des ngi lijjanti seeni code ñi dugg ngi dugg ñi génn ngi génn ku ne yaa ngi def sa yitte waaye am na intérêt boo xam ne bu xësee taxaw rek kenn dootul xam kenn laa ilaaha illallah am na intérêt boo xam ne bu xësee taxaw ci dëkk bi kenn dootul gëm kenn kenn dootul wóolu kenn kenn dootul dimbali kenn nu may def ba jot ci affaire bi rek ak nu ma ci man a jotee rek man jaral na ma bu ñëpp dee man sama yoon nekku ci nañ dee mais man naafalu ñi nga àndal ni la ngay falu camp bee taxaw beneen camp bi taxaw tax si taxsibuhum jamian commencé wa qulubuhum shatta te pourtant ñooy tase ci gàmm yi ñooy tase ci ziyaar yi ñooy tase ci ngént yi ñooy tase ci céet yi ñooy tase ci dëj yi te pourtant da nga leen gis ñu nuyonte saafonte ku ne akolaat sa moroom te buñ ku ne wanee sa gannaaw rek ki gañe moom bëggul lu dul waaji bu bu mos ki mos ki mosagul bëggul lu dul waaji daal taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta mais bu daanoo ban intérêt la amal mais ndax ndax xëccoo ndax xëccoo jar na jar na saaga bokk nit moo xam yéen bokk ci meen ak fu ngeen mën a bokk rek ci aadama ngeen dase ñëpp ñaari leen jur aadama ak xawa ñëpp ñëpp ñëpp aadama leen jur ak xawa ki tax ñu sàkk ñu mooy rasulullah kon ndax jar nañuy xeex géwal beeg tëgg beeg lawba beeg uude beeg naar beeg wolof beeg bambara bambara bi ku a doon da nga koy tag sabab muy tàgg bopam bala yag rek ngeen tase ci ben maam ndax koku jar na saaka ndax xëccoo jar na génn fetal ndax fal leen ma jar na fal leen ma képp ma jiite leen ma yar ak fetal pour ja xex mukk tax si buhum jami'an wa qulubuhum shatta mbokk yi lii ma wax ni ci ci feewolo ci nit ñi xoolal li xew ci yeneen secteur yi nga dugg ci société ñu affecté la fa li ngay njëkk a def mooy dindi fauteuil ya fa nekkoon parce que wóoluwoo ki ci nekkoon jàpp nga ni lu dul ay liggéey sotti na ko ca moom mi ñu wàccee jàpp nañ ni say pexe moo tax ñu fal la ngeen ñoo def passation de service akolaatante ñaanalante te fekk seen xol yi taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta xataa ba ci jàkka yi jàkk joo fi dugg coow laa nga ni kur ñépp ngay coow kay jiite moom ma nga ñaan yàlla sax ca jiite ga ñii na ngay xëccoo nag xam nga ñii na ngay xëccoo nodd nga am na koo xam ne moom bëgg a jiite képp ko tax ñuy jàkk ji nit di la jiite bare nga taxaw ci sa gannaaw soxal neexul pour lan taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta maa ngi koy wax benn mbokk ma ne ko li ma jaaxal imaam day ñëw ci jàkk Kabar di julli jiti ni ñu lu ñin fu at kenn du wax dara kenn du wax benn bis muy tare rek joom ci benn baat bu ndaw jagg ji yépp àndandoo subhanallah subhanallah mel na imam wurtu juum yàkkamti nag joom gi niñ koy sàbbaale sax imam bi day wu pour xam sax fan la yamati woon bu ko defee julli gi jaxasoo subhanallah kii subhanallah fii kii subhanallah fee julli gi jaxasoo kenn du xam fu imaam yam buñ génnee def ay groupe imaam kay jàngul imaam kay nangam imaam kay te imaam ñaar at la jiite ñeent fukki at wala du ko jege musul juum même dañoo fàtte ne xanaa nit nit la ñu commencé nag dugal ci jàkk ji nag tax si bu xam jamian waqulu bu xam shatta day am ba ci kat yi fim mu ne man mii def émission bi su ma defoon émission 50 ans 50 ans dañ nan wa ah, émission bi kay amna solo ñi ne wa ah, émission bi kay jëru ko mais lamay wax ba saga ci bir émission bi télé yépp bus ba dañ ko tek yépp tek saga bi lu tax ñu koy tek bëgg information ki waxe ko ne tahsinu jamian wa qulubuhum shatta mais kañ la suñu xol yi di ànd kañ la ñuy bokk benn ndey kañ la ñuy bokk benn baay kañ la ñuy raxas suñu xol yi ñun ñun ndaw ñi ku la yéene sa bopp li mu yéene sa morom wax la ko li ma la yéene lu bu la yéene rek yàlla naa la ci jiitu am na ci loo xam ne bokk ci jiitoo bu sibaam li war di wax naan bañ weex na waaye derete ko lal tax ñu naan bañ weex na waaye deret ak wàllal te bañ di bañ deret di deret siiñ di siiñ ñoom ñëpp ñu branché wu ci bopp taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta nit di sonn ci xam-xam di wax di xew ci yi di wax ci plateau di wax ci xam-xam di wax ci xam-xam lu rafet benn bis mu xëy rek yàq benn masque borom xam-xam yëpp xamul dara waxoon naa leen ko jàngul daat dof day taxawaalu ratatatatatatatat te ñaata at la wax bu ko defee moom it mu tontu mu jot taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta ñu invité ma tey ma tagg sama sëriñ xaq ah, ay sama sëriñ la dama koy tagg nu mu nu ma nu mu ko waxee rek ma tagg ko loola mais nag kenn dagg sëriñam ku dagg sa sëriñ rek mu jur coow bu subaa ñu invité keneen mu dagg sëriñam saaga sama sëriñ bu ëllëgee ma saaga sëriñu jàmbur buñ ci jógee tax si baxum jamian ah, wa qulubuhum shatta buñ tasee ci cérémonie yi ah di raayalante gannaaw rek te bu ñu wéetee suñu roq yi di saagante rek waaw mbokk yi kañ la fiy jóg kañ la noonoo du génn suñu biir kañ la ñàkk a jàmm di génn suñu biir wax mbokk yi kañ la suñu xol yi day ànd waaye waaye nañ rafetal suñu xol yi waaye waaye waaye am nañ la ko yéene te ñaan yàlla nañ mu may ñu lim la may benn kilifa gu baax daf may wax ni lawet bul xeex ak nit mukk ci baati bul iñaane nit mukk la ngay demee di ñaan ci nit pour mu yàqule toogal nga ñaan ko yàlla yàlla may la lu ëpp lim ko may kon nag mbokk yi seen émission an nasiha liñ doon waxtaan tey nag mooy taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta kon nag li ñu mayeen ci waxtu dafa mi ngi jeex tabaarakallah di gërëm bu baax sunu techniciens yi sëriñ Alla Wade di gërëm surafa yi nekk ci dëkk bi yépp di nuyu bu baax sëriñ Habib Ba ibnu sëriñ Omar xalifa sa Sida Alioune di nuyu Cheikh Biram Seck surtout maam Cheikh de Calaw Canguraan di gërëm bu baax sëriñ Moustapha Diaw ibnu sëriñ Mbacke Diaw ibnu Cheikh Mat Diaw Waalo di gërëm mboolem ñi nga xam ñi gën émission bi moo xam góor jigéen mag ak ndaw di wax ni yéen ñi nga xam ne yéen seetaan Géewul TV télé bi seen télé la dañuy yëngatu ci mboolem cérémonie yi ci wàllu diine bu dee gàmm màggal cant ziyaar conférence ba ci réunion sax télé bi da koy jël te da nga am ñetti bénéfice bu la neexee ñu defal la ko direct ci YouTube bi ñoom mën nañ ko ñu xarañ la yàlla sàmm leen buñ paree defal la ko ci kaset defal la ko ci kele indi la ko sa kër ba ko ñetteel mooy ñoom ñoo la ko yóbbul ci tamseer tegal la ko defal la ko ci YouTube bi doo ab la kaset bi doo ab la kele bi koo soxla rek ne ko demal YouTube nga tàpp géwël aar wax ko fi muy jaar rek nga seetaan ko dootu leen sonn kon nag waxtaan waa ngi noonu ñu ngi jaajëfal ñépp di yëkkati jataay bi ba beneen yoon insha allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu علينا من ثنيات الوالد